jaarale ko sunu doom ji Mamadou Lamine Pen ñëw fii ñu waxtaan te lépp rek ngir jàppale monsieur le président liggéey boobu nag Daouda mi wax na ko léegi tey day suma sañoon waa APR yëpp ñu bokk ànd doon benn. ndax ñoom tey seen objectif mooy ngeen réélire mooy ngeen falaat le président Macky Sall le président Macky Sall ñenn ñi je parle je parle à mon personnel nag à mon nom parce que tey soo sa kaddu parce que réew mi boo fi yekkee tey sab kaddu euh, di wax loo xam ne du noonu di la nga xam ne du noonu ah yaa ngi tooñ ah, ëllëg ëllëgub yàlla la na ko ñëpp xam itam ëllëg ëllëgu yàlla la ñiy wax ñëpp di pronostiquer wa ilaa teg ay menaces loolu du taxawaay bii rafet si ab jullit man dey loolu gëm tey le bilon yàlla dafa dogal man mi du ma sëriñ yoo xamante ne jànguñu man ab intellectuel la man jàng naa de j'ai des diplômes banquier nekkoon naa banque nekkoon naa fa di liggéey kon ni man kenn du ma wax loo xam ne du dëgg man de li ma gis mën naa ko it seede liggéey bi président liggéey à travers réew mi a ah, man de bokk naa si ñi ko rafetlu rafetlu naa ko man kon kay kooku euh, jar na nag ñu jàppale ko si liggéeyam ndax fa mu bëgg a àgg mu àgg fa.